ngi tambali di ziaré njabootu seigne Touba khadim rasoul fi tew di ziaré mbokk yi di yëkëti ay kaddu ndial di tek ci loxo seigne bi mu jottali ko seigne Abdourahmane Tilala ñu ngi jaal seigne Abdou Aziz di jaal soxna yi doom yi ak surtout di jaal talibé yi dinañu ci ràññee it suñu benn doom ñu naan ko mustapha mi toog ndax moom it dañu séq àddina bi nu yëgee tiis bi boobu fekk na nu sori Sénégal lool ñu am ci naqar ak tiis ndax sëñ Abdourahmane sunu wëllëre la woon kër gi xam nañu ko dafa doon koo xam ne kii ñu ngi xamante ci wàllu àddina ndax kilifa diine la woon waaye amoon na gis-gisit ci àddina bi président Macky Sall di wutaat réew mi ma gën a jaxasoog moom mu jël engagement ci wetam ni ko monsieur le maire de Parcelles Moussa Sy waxee noonu la amee monsieur le maire Momit, l'amour la mu waxante woon ak sëriñam mu dox ko kon monsieur le maire yow it ñu ngi lay jaale sëñ bi di ko jaale njaboot gi ndax sëñ Abdourahmane benn kàddu la woon ba mu jëlee décision ne day jàppale président daf ko jàppale na mu ko waroon a jàppale mu am lu bari lu ma ci xam muy ci wàllu parrainage ba ñu ne woon muy ci wàllu mobiliser communauté moor bi mobiliser taalibe yi bala nga xam ne moom la waxante woon ak président mu def ko ba mat sëkk kon ñun sunu gar la ñu ñew tew tay ji ci suñu àlliwoo bu gàttit ah, ñu ñaanal ndax dafa doon aussi li tubab nan leader religieux waaye wess won na fofu nek un leader social ndax ni mu encadrer won it talibé yi kenn déggu leen ci ben geste indiscipline wala lu leen di xébé ndax noonu la leen yare woon toujours tàntal daf ci daan yeete ci yee xale yi mag ñi jigéen ñi mu doon ko amaloon njëriñ aussi réewam ndax it leader loolu lañ koy doy mu mate ko woon sëkk am na nu tiis lool lool lool ndax nag dinañ wéetal it ndax sunu xarit la woon sunu càmmeñ ju baax la woon dañu koy ñaanal yàlla yokk leeram mu rasool teeru ko ci àjjana ya gën a kawe kon mbokk yi looloo doon kàddu yi sunu xol fees na ndax sëñ bi minante woon nañ lool mu doona nit ku laabiir soxna yit ñu ngi leen di jaale bu baax a baax a baax ak doom yi ak ni ma ko waxee taalibe yi ndax ñoom it matoon nañ taalibe sëkk ñoom tuuti luñ ci xamoon. ñu ngi wax nag ci kàddu sëriñ Abdou Aziz mii nga xamante ni mooy sunu yaakaaru tey ak ëllëg joxuñu kenn dara jox kow des bokkul ak ñun kenn tamit ñun ñëpp mboolem seen moonu moom ñoo ngi jox wàccuwaay wu rëy wu màgg wu kawe wu tedd madame la présidente Mimi ndax nit ku nekk la nga séq ak moom rek fa seen àdduna yam wax na dëgg sëriñ bi càmmeñam la woon sëriñ bi sëriñam la woon waaye sëriñ bi xaritam la woon ñëw na fii ñu wax ko niko ñun ñep ñu ngi lay suivre ndax sa détermination ak sa jom jigen junni buma don doon rek amo jom té lu mu wara fajj fajj nako té ñun suñu kaddu ñun wa kër Sirif Abdourahmane bu dé li ñu wax dëgg la ci ñun la monsieur le maire Moussa simi mii rek bu nexé duñ waxati ndax ñun ku ñu japp ñu japp la. te ku jàppoon sunu sëriñ ba ñu jàpp la boo nu bàyyi sax duñu la bàyyi moo tax bu politique yëpp dajee ñun moom la ñuy tudd ndax bu lëndëmee këriis moom lañuy gis bu leeree nañ nit moom la ñuy gis kon bi mu la seereelee li ñëpp xam ci yow rek gën nañ laa téye bu loolu lépp amul woon te nga dox sa tànk yii ñëw ci ñun neex nañu loolu sama baay danaan wax nan buma xewle sama xew wi ki ñëw xem bi matt yi daaneel mbana sax neex na ma buma amé amee teral ko ndax xalaat na ma amna ko xam duma xalaat mu président yable woon na délégation te yéen umbeunte wulé ndax ben kuréel la waye da nga ñëw sa ñëw bop ndax Sérif abdourahman ni mu mel ci yow loola nak serigne Abdou Aziz mi dafa wax ni sama jur bu baax wa amoon dinaa la am ku mu téye woon sol naa sama dàll ngir fa yéene laa téye moom nag loola dina ci noppalu xam nga lu tax kenn génn ko kenn génn ko xam nga lan moo wutee jëmm yi rek amul leneen jëmm jaa dem rek ñu miinoon ko ñeent fukki at bi yàgg benn nit juróom fukki yàgg kenn nit rek waaye réeruñu woon moom de ndax jamono bu ne bu soowee ci baayam rek teraanga indi heure boo gisee Cheikh Abdoul Aziz mu jaar fii teraanga indi indil baayam gàtt tànk néew ay wax rëy jëf bëgg baayam lool gën sa gëm sëñ Tuubaa lool gëm maam Cheikh Rafaal lool waaye tegu ci dëgg nag ndax xam nga moom li ko lëkkale dafa bari